voilà <laughs> donc euh, ñu bàyyi xayri mu jukki li nga xamante ne moom la indi tey xayri tey may may Babacar nekk fi. waaw tey moom mërs bi da ciy jàpp bu baax. da ciy jàpp bu baax xaw ma tey kon. ba pare di ma di ma di ma sànni yu sew fii lay toog fii Assane toog di ma sànni yu sew. may ree mu def ñàngal. Assane dina la sànni. yéen a koy jiñante de waaye xam naa kon tey Assane. Assane dina la sànni Assane peut gadget la. sa waaw xadi tey ñuy waxtaane li nga xamante ni rek ba tey dafa jëmaat ci mbirum sëy uh-huh. ak déception yi nga xam ne parfois mooy am ci biir néegu sëy mais tey nag li nga xam ne moo koy gën a waral mooy euh, mën nañoo jëm ci beneen côté bi nga xam ne dañuy wax ni léeg-léeg mooy nekk ay mariage forcé uh-huh. te forcé boobu parfois dafay am ci góor léeg-léeg ngay toll benn âge ñu la danga war a takk jabar takkal jabar te xëy na takk ba sax nekkul lu gën ci yow wala loo xam ne da nga koo koy forcé nga def ko malgré ñi parce que mënoo ko bañ a def rek war nga ko am nga ko toll nga ci war ko def def ko mhm. donc mu nekk ay yoo xamante ni nit ñi dañ ko war a bàyyi parce que toujours dañ ci am ay yoo xamante ni da nga koy dund ci sa biir néegu sëy te après daal doo xam naka ngay def ak moom mhm. te li ci gën a garaaw mooy euh, dañu nekk ci dëkk bi nga xamante ni nit ñi dootuñu wax kese bàyyi dañuy wax di ci boole damay dem ci maaman wala ñu naan la demal ci maaman da ngay am sa doom mu tukki yàgg fa lool nga xëy xëy dem ci sëriñ pour mu indi la ko mhm. wala mu yàgg ci bitim réew nga xëy forcé ko may ko may ko jarbaat ni ko léegi nag il faut nga ñëw mhm. moom day dem di indi jabar jën ko may di indi ay mbokkam tamit di indi de ce waa ji bu ma mënee ñëw day ñëw bu mënul ñëw day ñëw bu ñëwee tamit bu bëggee day ànd ak jabaram bu bëggul day ànd ak jabaram parce que le coup est déjà passé parce que déjà maye nañ leen ba pare donc tey ñuy waxtaane ci li nga xamante ni ci loolu la jëm mais waa ji ñuy waxtaan nag dafa nekk ki nga xamante ni xëy na peut-être dafa yàgg bitim réew ñëw na ñu may ko soxna bëgg na ko bëgg ko en tout cas pour mu ànd ak soxnaam il faut muy utiliser li nga xamante ni moom la ñuy wax ay golden mm-hmm. di ko jaay boo demee HLM da nga ko fay fekk mm-hmm. moom nag bi ñëw daf ko àndaale bari na ci tamit ñoo xamante ni bitim réew la ñu nekk man yàgg na maa gis ay ñoo xamante ni samay xarit lañ wala ñu xam ma ñëw di ma confier seen bopp. Mhm. comme quoi ak seen jëkkër daf leen koy envoyé. ñu di ko utiliser pour xëy na peut-être ci moment bi nga xam ne dañ dem ba seen xel nekk ci góor ñu bañ a mooy genre. Mhm. mais euh, de toute façon ci benn élément de reportage dañuy bàyyi reportage bi jàll après ñu ñu commentaire ko. daa indaale jikko yu tubaab moom daal bu guddi jotee bu ñu waree tëdd daa am lu muy utiliser li ñuy wax golden sex maanaam loolu lay utiliser pour doog may doog may mën a sentir daal te man affaire bi daf maa xawoon jaaxal trop sonn naa te bëggoon naa ko ma ci jàppale golden sex lay utiliser lay utiliser golden sex moom lay utiliser soo mën a am soo ko mën a ànd ak man pour seet ak man dara daal te man affaire bi jaaxaloon na ma trop te bëggoon ko ma ci jàppale nag yow moom lu tax nga utiliser loolu laaj nga ko laajuma hmm, laaj naa ko benn jour mais dañu ma loolu lay mën a utiliser pour doog a doog may mën a sentir daal tant que deful loolu du am du am sama envie daal il faut mu utiliser loolu ba pare muy soog a am sama envie léegi kon nag dina ba ay sexe jigéen la wala yu góor la yow daal façon bu nee ngi ci loo xalaat lu ne mu ngi ci hmm. façon kanam bu nekk daal nga indi waaw euh, élément bi mënoon naa gën a xëy na leer sax parce que xam nga kii dafa am benn mariage loolu lay wax nii jëkkër ji bi mu ñëwee moom ndeysaan ñëw na dakaar parce que nekkul nekkul dakaar mhm. ñëw na dakaar di ma wër di ma wër ba ñëw ma defal ko ñu defal ko reportage bi ca ca salon ba. Mhm. mu am rek envie pour wax li nga xam ne moo nekk ci moom. Mhm. mais bëggul feeñ nag quand même. d'accord parce que dafa bàyyi ay famille mu nekk nag famille bu bu mag. boo xamee seet ni xëy na euh, moom ma ngi fay dund loolu mais affaire bi da koy metti waa ji bi muy ñëw moo indaale ay sexe am mm-hmm. mais yi muy indi dafa indi yu góor indi yu jigéen te pour mu seq ak moom wala ndaw si forcé ko ni ko man yaa ma fi indi lii ngay def ne xaw ma ko waaj ji moom ci yooyu yooyu daal lay gën a nekk à l'aise mm-hmm. mais moom moom daal gis na ni jëkkër ji bi mu ñëwee xëy na peut-être vie boobu la doon dund mm-hmm. te gëmul ni am na lu ko ci mën a génnee donc bi ñu ko ñëwee tamit xay na kon ki ñu ko indil du seytaaneem parce que Fatou si mi ngi koy wax léegi xëy na peut-être heure moo jeex ma bëggoon ci participer loolu mhm. donc am na ci góor ñoo xamante ni ñoom bëgguñu mhm. mhm. ñoom am nañu jigéen ñoo xam ne sax man dañ may wax ne ma euh, xëy na damaa bëgg a pause man daal ban ban waxee yow doo julli nga ne man sama jëkkër moo moo bëgg may pause mu gën a guddee xam nga xaw a gën a ñàng yooyu loolu moo ko gënal ba defee jàng koy coxtaan di ko caresse ak genre xam nga yooyu noonu dafa nekk li nga xamante ni mais nag bu fekkente ni dañoo dëkk bi mu jógee ba ñëw fii tey jii bu ma ko xon ku ne xam ne rek xëy na peut-être mën nañu ay sëriñ ñoo fa dominé. Mm-hmm. donc foofu noonu xëy na peut-être vie ba mu fa dund mu nekk koo xamante ni yaru na ak yooyu. Mm-hmm. mag ñi tamit jàppoon ni yaru gii nga xam ne noonu la yaru ak ni mu téye peut-être moom dina war a mën a téye ku góor koo xamante ni yàgg na France. Mm-hmm. yàgg na fa foofu la doon dund par téléphone ak seen waa kër ñëwal dinaa takk ndax danga fa takk takku ma ñëwal moom bi mu ñëw mu indaale bagage boppam. d'accord bi ko waxee nag ndax daa nga ko gis mu di ko génne début bi daaw koon def mais daal nee na moom pour mu yëg boppam il faut mu fooy li nga xamante ni mooy li nga xamante ni moom la ñu wane léegi mm-hmm. xadi mu nekk nag loo xamante ni lu xaw a metti donc xam nga mariage léegi nga dugg ci ba ci biir ñi nga xam ne ñoo waxoon nga leen tas seen sëy bi ñun la duñ ko tas mm-hmm. yow amoo foo jëm mm-hmm. donc li li ngay def mooy daw di dem ci télé yi ak ci rajo yi muy am ñi nga xam tamit yàlla baaxee na leen trop ñoo xamante ne ñoom dañu bëgg walf te yàlla rek tax jàpp ko nag boobu ba tey te bàyyiwuñu muy ay boroomi xam soit muy ñoo xamante ne ay psychiatre la ñoo xam mën nañoo waxtaan ak nit mm-hmm. wala ñoo xamante ne ay sociologue lañ wala ñoo xamante ne ay sëriñ lañ sax ci côté ñaan ñu war la mën a ñaan wala ñu delloo si la mm-hmm. donc ñooñu ñëpp bu fekkente ne am nañ ñooñu dañ leen di woo ci genre yu mel nii nii ñun ciy jàppale parce que parfois dañ koy soxla trop trop comme cas bi fi jàlloon ci affaire tribunal beeg yooyu noonu donc xam nga lu mel ni nit ki bu dawee ba ñëw ci di la wax man de yaakaaruma lu ko pour ma am ci parce que moom amul lu mën a tegal seen waa kër comme quoi que lii laay dund ci sama biir kër mais man bi ma expliqué bi ma duggee YouTube ko daf ma ni genre yi la yor mhm. donc mu nekk loo xam ne set ni doy na waar mais nañuy bàyyi di force nit ñi ci ay mariage boo nekkee bitim réew bitim réew neex la nga toog fa di fa dund ba ab da dund boobu nañ la bàyyi nga dund sa dund mhm. mais forcer la nga ñëw te forcer bi dafay ànd ki liggéey parce que bi ma ko laajee nee na waa ji def na plus de dix ans fële. mariage bi fii ay trois ans ñu na na tas sëy ko tas parce que waa ji borom alal la dugg na ba pare comme jox na xale bi matériel. Mhm. ñuy liggéey di waa ji xëy ñëw. donc bi muy ñëw moom li mu ëndaale mooy lii est ce que du mhm. lii la doon dund foofu mhm. kenn xamul. ndax waa ji tamit euh, góor jigéen la genre damay yàlla baal ci wax ji. waaw ndax mën na nekk également loolu laa bëggoon wax am na ci ñoo xam ne également ay loolu ay ay homosexuel lañ su ko defee dañuy bëgg noppiloo nit yi takk jabar bu guddi jotee ñu jël seen yi di ko utiliser parce que am na boo xam ne boo xam ne wane nga ko boo xam ne derrière euh, bi la moom la ñuy parce que mënuñu sikk seen jabar parce que mënu leen satisfaire mhm. am ñoo xam ne dañuy takk jabar juste pour la forme pour leurrer nit ñi te dañuy am seen yeneen chambre yoo xam ne fa la nekk di genre yi parce que xam nga bi ma ko laajee sax ni ko ndax moom rek mooy def moom yëpp la indaale moom da koy jox ne ko am satisfaction waaw donc c'est pas waaw ni ko léegi man nga la xool je la en fait je pense pas pense que vice la waaw moom xam naa dafa am sànq mën na nekk tëju nga doon tëju foofu ci Europe mhm. tëju yi ngay tëju mhm. tey euh, mën nga bañ a gis jigéen joo xam ne dala koy nangu parce que xam nga ne tubaab bi boo demee ci ñoom amaana leneen ak leneen fekk la ca mhm. duñu ñemee ñemee aborder jigéen donc loolu la ñuy mën a jël pour satisfaire seen bopp mën nañ ko faa tàmmee tamit loolu loolu lay doon xam nga euh, gis nga li ñuy wax solitude baaxul parfois daf lay dugal ci lu nga xamee set nii da ngay rêver benn affaire boo xamee set nii léeg-léeg dafa yomb xale yi mm. parce que doon nañ euh, gis fi nga xam ne dañ naan dañuy jaay seen bopp mais dañuy utiliser ba ñaari góor wala genre yooyu léegi yow bu fekkee ne da dem ba ñaari jigéen tàmm di la di la di la di la ñoom ngay seqal nga ñëw Sénégal sexe benn vie boo xam ne sa jabar dal naa man waxtu julli yi sax du ma ànd yow ba heure bi damay julli damay nangam naam yooyu day dem ba daf lay étonné mhm. nga soxla ko heure bi mun na noo heure boobu wax dëgg yàlla mënuma kaa nekk yow soit damaa nekk ci liggéey wala maa ngi sóoraale famille beeg genre mhm. mu dem a dem ba yooyu tamit day dem a dem ba yow après da naan man daal ñii dañ maa yàpp wala genre yooyu parce que yow dundatoo li nga mhm. xamee setti moom la ñu donc da doon tëju rek di def li nga xamee setti moo la ne dañ fi doon soog a utiliser man ma ci nuyu xam ne daf ko daan jaay ba ma ko laajee waa lii moom mun ma noonu dama am ay commande mais nee na benn xale bu jigéen dafa mus a dem ci ustaasam di ko laaj mu ni ko mooy bu xaw a euh, kii la quoi boo xamee set nii euh, méttiwul carrément comme nga jóg dem ci sa morom nawle di ko def ak moom donc bu bu mel nii moom la yàlla gën a mën a baale que nga jóg dem si nit mu nga di ko def moom mm-hmm. donc mais loolu moom doo xamee du nekk loo xamee set du nekk loo xamee set ni dinañ ci sori mais tamit euh, xale yi ñu bari ñu ngi koy utiliser parce que gis nañu tamit ah, mu ëpp sutura mm-hmm. peut-être mën nga dem ci góor mu xamal la ko donc bu dee lii la moom amaana du ko wax xëy na peut-être loolu doon na ci pousser nit ñi tamit ñu dem di ko jëndi mhm. xale yu jigéen ñi moom ñu ci bëree bëri dañ koy utiliser loolu tax na mhm. ñeneen ñi nga xamee seet ni ay jeeg lañ tamit seen jëkkër yi nekk bitim réew di leen ko yónnee donc pour ñu téye seen bopp di leen wax li leen na peut-être muñ leen ko muñ ndax jigéen mhm. am na li nga xamee seet ni waru a dugal sax yow ci sa bopp ko accepté di ko nangu mu nekk nga xamee nag daan nañ ko gis li ñuy wax saafara su juru jàngoro. et malheureusement pour moom sujet tabou la boo xamante ne du mën a dem nii ci yaayam nii ci papaam ci ay goroom. manu ko ndax bañ na ko moom ba mu fay jógee marché HLM la tàggoo comme dafa déwéy jënd ay yére ñëw dénkaane ka nga xamante ne moom la àndaloon di wër di wër di wër ba yàlla indi ko foofu noonu donc bi mu ñëwee sax xam nga rek summeeku masque wu ak yooyu noonu yëpp loolu yëpp daf ci am mais xat li ñuy wax saafara si jur jàngoro xam nga yii da nga ko daan gis ñu di ko jàngale di ci jàngale mm-hmm. di wane sexe si jigéen ngay gis ñu di ci jàngale naa la lii la yi moo ci nekk nangam nangam mais nag léegi dañoo dem ba góor ñi ci boppam euh, da dugg sax ay néeg parce que man am na keneen ku ma ko laaj avant may indi kii bi ko waaye yéen góor ñi ngay utiliser kii ni ko sa néeg kenn sonnatul nit ñi dañ lay bëgg rey ak coow jigéen ñi jox ma coow li di la bëgg a rey poupée sexuelle poupée sexuelle ngay ba mu jekk nga teg ko sa kër boo ñëwee mel ni ko yor jabar mhm. ma ne ko doom mun ma doom da ngay dem ëmbal fee benn booy boo xam da nga koy bàyyi muy màgg boo amee mm. jox ko boo amul xam nga yaayam yor ko mais jigéen ñi nga xam ne léegi dañoo bari coow bari jàmbat yaa ngi dégg bari histoire toogal seen jëkkëri xarit tax na tax na tax na xëy na ñu bari léegi di daw di wuti ci yooyu nga xam ne te dañuy ñoom kat fa la ñu amee seen la ñu am seen tranquillité yaa ngi dégg bu ñu xëyee liggéey man je pense mooy da nga ko bëgg a def ngay ut excuse alibi la donc mais góor yàlla dëgg doo jël poupée nga fat ko ci sa xel